nguur gaa ngi falsifié résultat maanaam di gonfler yokk ay voix am ci yenn zones yi en complice ak ay mandataires corrompus pour bu ñuy séddale 53 députés yi des ci liste nationale yi Benno mën faa dabu li mu ñàkk ci département yi. ñu bari ñoo ngi laaj bu weesoo département yi nga xam ni coalition yi 112 députés la ñuy xëccoo naka la ñuy séddale députés yi des muy 53 ci scrutin proportionnel yi ñu gën koo xam ci liste nationale. foofu noonu dañuy xool coalition bu ci nekk li nga am ci Sénégal gépp maanaam bu ñu dajalee voix yi nga am ci mbooleem département yi ci la ñuy sukkandiku pour xool ku nekk ñaata ngay am ci 53 députés yi des boole kook député yi nga jot am ci département yi. plus sa nombre de voix bari ci bu ñu boole sa résultat yëpp plus say nombre de di gën a takku moo tax bennoo Bokk Yaakaar ci mbooleem zone yi ñu gañe ñoom jamono jii ñu ngi jéem a yokk chiffre yi. pour mën a ëppale ci li mu 53 députés yi des te mu war a àtt kan mooy doon majorité assemblée nationale. ndax wóor na leen ni l'intercoalition yi wàllu ñoo gagné département yi gën a mag ci senegal département yi ëpp député par exemple ci législative yi Benno Bokk Yaakaar dafay gagné cinq département juróom waaye wàllu gagné benn département boo ko déggee foog ni Benno moo dominé mooy ëppale député fekk demeewul noonu donte waa Yewwi Wàllu benn département la ñuy gañe mais seen benn département boobu noonu li mu am ci député amul ci boo boolee cinq départements yi waa Benno gañe lii nag la mën a demee daan ci ñëw pour ñi comprendrewul tàmbalee ko ci le système Déthié faal bi permettre waa Yewwi Wàllu wëlbati carte yi ci zone yi nga xam ni Benno Bokk Yaakaar moo ko gañe woon ci élection locale yi weesu ak lan mooy les clés caabi victoire bi nga xam ni intercoalition bi am na ko ci législative yu 2022 yi buñ ko comparé ak législative yu 2017 yi nga xam ni dañ koy reconnaitre opposition bi dafa defoon ni fi cuune ba ñàkkoon assemblée nationale. victoire bi lañ leen di tojal étape par étape ci ni mu gën a simple pour que même xale bi gën a ndaw xam naka la victoire yee wàllu bi demee. est-ce que xam ngeen ni ci élection législative yu 2017 yi juróomi at ci ginnaaw li Macky Sall am 125 députés assemblée nationale yëpp li ëpp ci Sénégalais yi voté ñu ko woon. Benno Bokk Yaakaar 49 pour cent ci Sénégalais yi 1 million 637 mille 761 doomi aadama ñoo ko voté loon. 51 pour cent maanaam li ëpp ci askanu Sénégal toll ci 1 doomi aadama. daal di voté l'opposition bi maanaam contre Macky Sall ak nguuram mais teewul minorité boobu noonu buy Benno Bokk Yaakaar moo gagné am 125 députés sur 165 jël daanaka lépp léegi lii lan moo ko waral parce que opposition bi ñii dañoo jaar nee ñi la jaar ne le coalition Wattu Sénégal bu Maître Wade am 552 095 voix

dafa bari woon candidat te moonte bu opposition bi boole woon lii ñu am ci benn coalition benn bokk yaakaar du am majorité assemblée nationale ndax minorité lañ bu ñu sukkandikoo ci résultat yi waaye li opposition bi tasaaroo moo leen may doole ndax élection yi raw gàddu la ku jiitu yaay roñ lépp lii moo tax en 2022 pour bañ a mayaat Macky Sall profité ci même scénario bi amoon en 2017 Déthié Fall créé lu ñu naan l'intercoalition Yewwi Wallu lan la intercoalition Yewwi Wallu boobu noonu jur ci élection législative yi weesu ci la ñuy ñëw. li gën a yokk tax intercoalition Yewwi Wallu juddu mooy da leen di jox beneen exemple ci élection locale yi weesu. bi ñuy fal maire yi en janvier 2022 Macky Sall dafa gañe woon commune bu ci mel ni Saint-Louis am 21 994 voix. Yewwi Askan Wi am 17 274 voix Espoir Progrès bu Mary Teuw Niane am 6 773 voix Wallu Sénégal am 3 449 voix Macky Sall gagné commune bu Saint-Louis te moonte bu Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal ak Espoir Progrès bu Mary Teuw Niane boole woon seeni doole 27 496 voix la ñuy am gagné dëkk bii di Ndar Benno Bokk Yaakaar ñàkk léegi ci législative yi nag ak le plan ci Fall dañ ne képp ku ànd ak wàllu Sénégal Yewwi Askan Wi ngay votel Mary Teuw Niane ne tamit képp kuy sama soppe maa ngi sàkku nga votel intercoalition Yewwi wàllu ñu dem élection mais waxuma la rek commune bu Saint-Louis mais département bi yëpp Yewwi dafa am 45 447 voix Benno Bokk Yaakaar am 34 472 voix lan moo leen ko may li ñu boole seeni doole bu ñu tasaaroo woon Benno moo jël mboolem député Saint-Louis yi donc lii méritu Déthié Fall la ndax moo naspexe yi donte amoon ay risques yu bare bari risque bi moo newoon naka la ñuy def ngir électeur bi xam kan ci diggante Yewwi ak Wallu Sénégal lay voteel bu duggee ci bureau de vote am côté sensibilisation boobu nag il faut reconnaître que leader bu ci mel ni Ousmane Sonko def na ci liggéey bu am solo ndax wóorul nu ko ni mënul doon député du bokk mais teewul dafa muy la mayo wër senegal joué ci influence am ngir xamal département bu nekk fii wàllu ngeen di votel fii yeewi ngeen di votel muy itam beneen xeetu teggi tuuma ndax ba mu doon woote lu yàggul ay manifestation ngir xeex jalgati yoon tukkee ci ministère bi ñu dénk bi réew mi am na ba ci biir opposition bi ñu waxoon ni intérêt moo taxoon muy xeex li mu bokkul moo tax mu bëgg a yàq élection yi mais teewul ba campagne jotee donte wóor na ko ni du doon député teewul dafa investiru lu raw ba muy yóotu doon maire wala doon président ak nag mboolem leader yi nga xamante ni bokk nañ ci l'intercoalition Yewwi Wallu donc doon choix bi muy woote en tout cas bu ñu xoolee taxawaayam ci campagne législative yi dëggal na ni nit mun naa joxe kàttanam dooleem alalam ak daraja bi ko yàlla may ngir ñeneen mën koo jariñoo askanu Sénégal mën ci bénéficier wu. ñu ñëw nag ci daj dëpp gi maanaam résultat wu l'intercoalition yee wàllu liñ ci mën a jàpp fee bu kenn du laam-laamee mooy département yi ëpp dayo ci Sénégal la ñaari coalition yi gagné. xam nga Mimi Touré dafa def sorti ne ci 45 départements yi nekk senegal Benno moo gagné fanweer yi 30 donc nee na ñoom ñoo am majorité. xam nga lii boo ko waxee ko xamul danaa lu yanu maanaa la moo gagné ndax moo ëpp département yi mu jël. alors que ci élection législative yi ñu weesu dañ leen di jox benn exemple bu terre à Benno dafay gagné six départements par exemple Gossas Mbirkilaan Guinguinéo Kédougou Ranérou ak Goudiri muy juróom-benn Yewwi Wàllu ñàkk ci département yooyu noonu mais ñëw gagné benn département dong muy dakaar teewul Yewwi Wàllu mooy ëpp la député ndax département bu Dakar kott sept député la waaye département bu Gossas Mbirkilaan Guinguinéo Kédougou Ranérou ak Goudiri boo leen boolee six député la juróom-benn bennoo ñëwaat ne gañe naa Fatick gañe Tambacounda am naa ñeenti député yi Wallu ñëw gañe département bu Mbàkke dong raw leen am cinq député bennoo dikkaat ne gañe naa Jurbel gañe Dagana am naa ñeenti député Yewwi Wallu ñëw gañe département bu Pikine dong romb leen am cinq député bennoo ba tey ne gañe naa Louga gagné Linguère am na 4 députés Yewwi Wallu ñëw gagné Thiès ak Tivaouane romb leen am 6 députés nii la élection législative yi ñu génn demee bennoo dafay gañe ñaar ñett ba juróom benn département yaakaar ni moo ci nekk Yewwi Wallu ñëw gañe benn département dong romb leen moo tax boo jëlee département yi bennoo wax ni la gagné biir Sénégal donte gagné lépp ndax am na yu résultats yi leeragul mais bu ñu jëlee yi mu wax ni la gañe muy Diourbel Fatick Foundiougne Gossas Birkilane Kaffrine Koungheul Malem Hodar Guinguinéo Kaolack Nioro Kédougou Salémata Kolda Médina Yoro Foulah Vélingara Louga Linguère Kanel Matam Ranérou Dagana Podor Bounkiling Bakel Goudiri Koumpentoum Tambacounda ak Mbour boo ko boolee 52 député la kon jàpp leen ni bennoo 52 député la magum ci mbooleem département yi nga jël nag zone yi nga xam ne Yewwi Wàllu moo ko gañe ci lu wér muy Dakar juróom-ñaari député Pikine ñoom fa juróomi député Géejawaay ñaari député Kër Massar ñaari député Rufisque ñaar Thiès ñeent Tivaouane ñaar Bambey ñaar Mbacké juróom Kébémer ñaar Saint-Louis ñaar Ziguinchor ñaar Bignona ñaari député Oussouye benn Saraya benn Goudomp ñaari député Sédhiou ñaar Afrique du Nord benn Afrique australe benn Europe ba mu daj ñoom fa juróom benn député Amérique et Océanie yi ñoom fa benn ASAC Moyen-Orient ñu am fa benn député boo ko boolee Yewwi Wallu dafay am 55 député mu des Afrique de l'Ouest ak Afrique du centre yi nga xam ne ba tey résultat yi leeragul diggante Yewwi Wallu ak Bennoo foofu itam ñu fay xëccoo 5 député donc jamono ji bu ñu jëlee département yi Yewwi Wallu am nañ 55 député Benno Bokk Yaakaar am 52 député bu ñu demee nag ci liste nationale yi te coalition yi war faa xëccoo 53 députés Yewwi ak Wallu daañu fa tibb lu mu néew néew lu mu tuuti tuuti ay 34 députés bu ñu boolee seeni résultats ci Sénégal ak bitim réew gépp bu fekkee dañuy préciser bu fekkee ni Benno gonflé wul li mu jotaam ci yenn région yi moo tax ñaari coalition yi mu Yewwi Wallu war a rester ci liy xew ci tribunaux yi ak PV résultats yi. rawatina zone ci mel ni podoor ak maatam fii ak vendredi la Macky Sall di jéem a wëlbati carte yi ndax xam na li xew xam na ni ñàkk na assemblée nationale. intercoalition yee wàllu bu ñu boolee département yi ak li ñu am ci liste proportionnelle yi war na am au minimum quatre-vingt-six députés lu mu tuuti tuuti juróom benn fukk ak juróom benn député te lii boo ko yoree am nga li ñu naan majorité assemblée nationale. opposition bi mooy ëpp ndaw te pencum ndaw réew ma dañuy am lu ñu naan cohabitation muy léegi lépp lu ñu décidé ci réew mi opposition bi daf ci am baat moo xam ci budget bi moo xam ci loi ñuy voté moo xam politique bi nga xamante nii moom la ñu namm yore Sénégal kon tax solo bi tey loolu la woon ñi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngit jëf